نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax fa tabarakallahu di leen ziyaara xam naa xadis du jour mooy xadis rawahu ahmad yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni silatu rahimi wa xusnu alxuluqi wa xusnu aljiwaar yuammir na diyaar wa yazid na fi l amaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni xusnul eh, fa tabarakallahu mooy jokku mbokk ak jikko ju rafet wa xusnul rafetal ak sa dëkkaloo yi nga dëkkal mu ne ñett yi fa tabarakallahu eh, yu amir na dafay dundal yi wa yazid na fil amaar te dañuy dolli nag fa tabarakallahu fan waaw bëgg sa fan yokk sa kër neex am barke yonent bi nee maa ngi lay dénk ñett yi bi ci njëkk mooy del fexeel di jokk mbokk ñetteel bi mooy ñaareel bi mooy fexeel fa tabarakallahu sa jikko rafet ñetteel bi nag mooy nga fexe rafetal say dëkkandoo mu ne ñett yi soo ko matalee yàlla dina defar sa dund dina neex sa kër dina neex yàlla dina dundal sa kër baneen bi dina yokk say fan looloo doon xadis du jour wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh